ndegam sëriñ abdulahat moo wuute ak melokaan wa mbakke lii di jote te yàlla njeeg borom belal moo làqu ku yabu waaj te xam ni dun bee yàqu guddi ga seex abdu fanaan fee tuubaa bawoo belal mooy ca guddi dugoo baa voilà jërëjëf mbokk yi seetaan le 28 Pro TV ñu ngi am mbégte yéen suñu mbokk internet yi eh, di ànd ak yéen ci spécial màggalu Cheikh Abdoulaye Lahat eh, di eh, troisième khalife général des Mourides Euh, li ko war a nekk ñu def maanaam ay édition spéciale ci moom euh, moom mooy que nii dafa di doon koo xam ne ni hmm. maanaam euh, chaque jour bu ñuy wax ci moom ay leçon lañ ciy jëlee di njàngale waaye tamit ñu gën a xam dëgg-dëgg ab taalibe wala murit ci ses comportement ak dëgg-dëgg taxawaayam digganteem ak kilifaam waaye tamit digganteem ak suñu borom ci diine ji. Hmm. loolu nag duñ ko yemale ci njabootam gi rek ci sët yi sax bam ci leen bokk parce que. tey ñoo ngi fii ci Touba HLM ñëw fekk fi soxna maam Faty Mbacké bintu Serigne yi mi nga xam ni tey moom moo fi toogee jotaay pour euh, Serigne Abdoul Ahad Mbacké euh, ci noonu itam ci wetam sëñ Khadim Mbaye euh, nekk coordinateur am bi nga xam ni moom mooy nekk ci wetam di ñu jàppale ci communication bi ak soxna soxna Ndeye Amar ñoom itam bokk ci ñi nga xam ne itam ñoom ñooy assisté ci li nga xam ne ñoom ñooy jotaay bi loolu yëpp nag ñu fas yéene cee ànd ak moom ci yooyu waxtaan maanaam wàccaayu bés bi waaye bu ndee ba ca bés ba ak bu njeextalu bés ba am mm. na lan lañ ciy jëlee ci loo xam ni bëgg nañ képp koo xam ne ñëw nga noo ci ñëwee mm. ak ni nga ci dikkee sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu di nuyu soxna si bu baax a baax ak di la ziar mm. di la jéggul nag ci dérangement yi waaw sëñ Xaadim bismillah waaw loolu day màggalug sëñ Abdou laat moom murit buñ ci woo rek dañ laa bëgg a dimbali ndax murit yi amuñu ku dul sëriñ Bamba ak njabootam ba tax na ñu ngi lay fay di la dalal fii ci kër gi ndax kër gi daaral la daara joo xam ni boroom kër gi fi dëkk moom dafa xam ne sëriñ Sidi baayam moo ko boole ci sëñ xam ne sëñ Abdoulaat baayam kenn ku ne xam na ni ñàkki caaxaan lañ ko tudde ak defar Touba def fi la sëñ ba baayam bëggoon ba Touba mel nam war a mel comme ni ñu ko waxee woon rek njabootu sëñ Bamba gi ku ñëw da ngay yokk waaye sëñ Bamba def na ba pare loolu waral nag waajtaayu màggal gi soxna si da koy def ay mbokkam di ko def ay xaritam di ko def ay taalibeem fii ba bitim réew nit ñaa ngi ci yoon yi di ñëw ñëpp a ngi waaj loolu nag boo ko gisee sëriñ Abdoulaat maam baax na def la mu war a def bàyyi mat na la mu doon def la mu war a def waaye jukkoom moom mii te bokk na ci li tax ñu topp ko ndax boo ko gisee ci biir dongo yi day mel ni moom ñoom ñoo maasi boo fekkoon soxna si tey ji ci waañ wi doo xam kuy soxla maam Faati te loolu bokkoon na ci li tax ñuy jug di seeti ab sëriñ di ko jox suñu bopp àdduna ak alaaxira ndax pour mu tane dimbali pour mu tane la dimbali la mën laa jëriñ ci àddina ëpp lam xel nga am soxla mu faj ko rek tax ab taalibi di seeti ab sëriñ jikko yooyu yëpp nag dajaloon na ci moom Mbàkke ndax maase na ak taalibe yi dimbali na leen ci dooleem dimbali leen ci xam-xamam te bu nu jàqee mu taxaw kon ku mel noonu su dee waaj màggal benn taalibe dootul toog gis nga soxna si mook mboolem luy jigéen ne ci quartier bi ànd na ak soxna si takku pour lu bis bi baaxee sëñ Abdoulaat nag mooy yoon wi sëñ Abdoulaat mooy lépp li mu def Touba kenn mënu ko wax dafa bëri waaw bëgg jàmm dégg daaray kaamil ji Cheikh Abdoulaat autoroute bi ay Cheikh Abdoulaat aynu raxmati Cheikh Abdoulaat yokkub jumaa ji Cheikh Abdoulaat këru mag moom gi Cheikh Abdoulaat bibliothèque bi Cheikh Abdoulaat lépp Cheikh Abdoulaye yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla fayal. alors euh, est-ce que wax nga ko sant ci sa biir wax. mu mel ne wutib sëriñ. Mm-hmm. Euh, ne nga dafa mel ne xawut a yomb. yomb euh, waaye tamit am taalibe est-ce que mm-hmm. tamit yomb na. am taalibe yomb na. non maanaam sëriñ bu wuti taalibe est-ce que yomb na. ci laa sëriñ bu wuti ndax ab sëriñ ay taalibe dañ dafa mës a dëkk ak ñoom ab sëriñ moom foo ko déggee ñu koy wax rek ay taalibee tax. dina ma baal nga dagg ko ki soxna si woon yi daf cee baax ndax da koy kiyal rafetal xanaa nga jëlaat foofu na ñëw ah, ah na ñëw ah ba pare. léegi te setam bi daf cee rafet sa image la yor. waaw léegi tàmbali fi nga tàmbali moom laa wax ma ne est ce hmm. que tey buñ doon wax wutib euh, sëriñ yomb na wala wutib taalibe moom moo jafe waaw euh, ci maanaam euh, wax ko sànq sa hmm. hmm. parce que boo ko fekkee moom ci biir taalibe yi ni ngi jax soog ñoom doo ko xàmmee sax waaw ci foofu noonu laa bëggoon nga leeralal moom wutib sëriñ moom yomb na li jafe mooy amuk taalibe te amuk taalibe na fekk sëriñ ba ngay seet mel na nga bëgg loolu mooy amuk taalibe bu sëriñ ba melee melee nanga bëgg danga koy mën a topp sa xel mën a dal foo dem sikki mhm. loolu nag mi ngi kër sëñ Bamba melo melo yooyu mi ngi ci kër sëñ mhm. Touba Cheikh Abdoul Ahad mhm. euh, bibliothèque la ndax wax nga ko sax euh, parce que moom euh, lu bari moom la ci biir Touba foofu noonu ndax mën nañu ñu fay dellusiwaatal tuuti ak lan moo waraloon yooyee tamit mu taxaw taxaw ko ci biir dëkk bi waa def lu baax lu ne tabax ay kër jox ko ñu mu bokkal baay tabax kër moom moom gi ba ko fi yokk jumaa ji ñu ne la Seex Abdoulaye daaray kaamil gi ñu ne la Seex Abdoulaye dégg nga Seex Abdou Xaadar ne jëf boroom a koy seede te yaa def daaray kaamil gi kon yaa ko yelloo denc ko ci biir loolu rek doy na seede ci jëfi Seex Abdoulaye moom la wax yéene néeg la yéene néeg la boroom fanaan boole ko ñàkki caaxaan nag lu mës a bëgg moom ci dëkk bi utu ci maslaa loolu dal la doomam ci sëñ Sidi mhm. kenn gisu ko fenn kenn dégg ko ci leen mhm. kenn déggul njabootam get ci leen lu dul bëgg sëñ Sidi seen baay donn sëñ Abdoulaat seen maam nekk ci li war a nekk loolu ñun ndaw ñu ko moom kon waaw pour jub mhm. jubal bëgg dëkk bi maanaam teg ko ci yoon rek loolu kon maanaam ndaw ñee ko moom ndaw ñi seen taxawaay waaw ndaw yi seen taxawaay mooy sëñ Abdoulaat moom ñëpp ko sopp ñun suñu génération bi ba ci ñunu mag kenn fekkewul jamono yi sëñ Abdoulaat waaye la mu defoon bafi ba tey ci lañuy sukkandiku di ci jàng vidéo yi sëñ Abdoulaye daan def ci màggal yi vidéo yi ab Abdoulaye daan def di yee nit ñi ci jamono buñ ko mësaane interview comme nii ngay def yooyu ci la ñuy sukkandiku tey mooy defar société bi wax luy ak murit wax luy ak taalib ndax njabootu sëñ Bàmba gi rakk dafa mës a topp mag mag mës a topp rakk yu mel noonu nag ñun jeunesse bi daf nuy yee buñ tolloo ci wàllu màggal gi fi ne weer wi foo jaar ñi ngi waxtaane sëñ Abdoulaye ñu waxtaanee jëfam loolu bokk na ci liy tax ñun jeunesse bi xamuloon sëñ Abdoulaye daan ko dégg di gisi image am xam lu mu daan def bi mu nekkee ci xilaafa gi ci Touba. Eh, eh, ñun nag ñu war a wuti lan ñun jeunesse bi. xanaa ak taali bi utaat yar fonkaat sañ tuuba jàpp ci lim fi bàyyi jàpp ci ñi ko fi nekkal xam ni ay sang la ñuy doon ba yomar xëyam te nu moroom koo xam ne boo jaaxlee ci moom ngay daw làqu soo amee lu la metti moom ngay dem mu faj ko Touba la fi daan nekk tey la fi gën a ne jugu fi. ndax sëñ Sidi baayam bi mbooleem ku ko féetam ak yoon wi rek da laa topp uuf njabootu sëñ Abdoulaat gi kenn jooyu noonu la moom mii ngeen fekk si soxna maam Faati mii mel ak ñi ko mag mel ak i waajuram mel ak taalibe yi ñoom rek doy nañu modèle ci taalibe bi ñëw ci ñoom war a am nu mel ndax ku nu war a topp rek topp nañu léegi euh, sëñ Abdou Lahad hmm. euh, li nekk ci moom wax ma ko ci sa biir wax hmm. boo gisee sëñ Sidi tey hmm. moom rek la lay jox nan dikkaat nag ci sëñ Sidi moom mi nga xam ne tey moom mooy waajuram ñu toog fii ñëw seet si ko moom soxna Maam Faty euh, digganteem ak comme ni nga ko waxee sànq mag day topp rakk rakk topp mag foofu noonu digganteem ak rakkam yi ak ak moom moom bu leen gisee moom nu muy comporté woo ak nan lay nan la ñuy doxalee daal ñoom waaw xam nga sëñ Sidi moom loolu ñuy wax gàcce ngaalaama moo ko dal ndax bi fi sëñ Abdoulaye jógee ba tey amul lenn looy dégg sëñ Sidi ci lu dul toog rek fa ko sëñ Abdoulaye bàyyi bàyyi uuf ay rakkam mat xalifa gi kenn jooyiwul dara kenn wariwul dara kon boo déggee gàcce ngaalaam sëñ Sidi lañ ko wax mbooleem ku ko mag nag yoon wi bu la na looloo tax moom rakkam yi mu ñi nga xam ne moo leen yilif gëmewuñ ko amu ci kenn ku yëkkati dara te demoo ci sëñ siidi ne ko maa ngi def nangam wala maa ngi wax nangam mhm. bu dee lu baax la mun la acca yaa nga ci biir mhm. bu dee lu jar a soññee ndax njabootu sëñ Bamba kenn du ci def lu dul noonu mun la defee ni waxee ni sëñ siidi daal lan naan fa la sa bàyyi bàyyi woon jógoo fa ba tey waaye sëñ siidi mbàkki mu ab Abdoulaye Laat Marema Jaxate ma ca ay gu neex ga fa ko sëñ Abdoulaye bàyyi woon jógu fa ba tey yàlla na yàgg te ñu euh, bi lépp mmh. li nga xam ne ci loxoom lañ ko teg mmh. denk ko ci doxalin bi mmh. muy saytu jubbanti ak orienté euh, foofu noonu est que am nga ñu loolu ci mën a indi ci yoo xam war nañ koo mën jëfandikoo pour bu ñuy ñëw ci dëkk bi comportement bu ñu war a indaale wala bu ñuy dëkk nan lañ war a dëkkee xam nga sëñ Sidi moom ba nu ko dénkee dëkk bi ak comportement dëkk bi ni mu war a mel moom yaakaar naa ni ku fi duggee noo fi war duggee kenn ku ne sëriñ Sidi xam nga ni moom lu mu jiita day mel ni lu sëñ ma Lahad ma Jaxate jiite ndax da koo jur mu donn ko te itam ni Touba di doxee ko xool xam ne xolu nit ñëpp sedd nañ ci ndax taalibe yi bu ñuy ñëw Touba dañuy kontaan ndax Touba day lu ñu judd rek fekk ko ci yoon wi ñun ñëpp mun ndawee fi la ñuy làqatu si mooy sunu mooy sunu lépp moom la ñu xam ni muy doxee lu baax la taalibe yi fonk nañu màggal fonk nañu addiye bëgg nañu sëñ Bamba fonk nañu sëñ Bamba te itam ay murit la moo nekk sunu xol ñun Touba mooy suñu dëkk ñun ñun ñun ñun suñu jamaa fii la mooy óomu sëñ bamba bi moo nu gënal fépp moo nu gënal ñëpp moo nu gënal lépp waaw moo tax bu nu fiy ñëw yar lañ fii indi teggin lan fii indi yiw lañu fi indi moom it lañu woote moom lañu bëgg a def moo tax ngeen gis soxna si moom rey ci baayam ndax soxna si taalibe la ci kanamu sëriñ Sidi mi ko jur nanguwul bàyyi ki moom lay doxe moom lay jëfe boo ko fekkoon ci sëriñ Sidi du ko nangoo sax jege da koy sori ndax ak taalibe looloo waral nii mu def ba màggal gi tàmbalee ba tey gis ngeen ko nii laxasaayu kaalawu toog taalibe yi lay laaj xalaat ci nu màggal gi doxe te xëñ na moo leen ko ëpp ndax bu dee xel mu rafet ak lu mbàkkee ko am waaye kenn ku ne xeebul sam xel dana la laaj donte lam lay laaj moo la ko gën a xam pour xam nan la ñuy mën a yokki kon kii modèle la ci wane ak taalibe ci wane gi yiw ci wane ne dëkk bii ba tey li fi newoon ñu di ko wër jugu fi ñiy segg kafe ngay segg kafe ñiy jàng xasaayit yaa ngi koy jàng ñiy teeru gan ñaa ngi leen di teeru ñiy berndeel nit ñaa leen di berndeel loolu mooy ak màggal loolu mësta jukki dëkk bi dañ ko fee fekk mu dundal ko ñëw nag ki asalem gi nga xam ne doy na doy na doy na doy na wane jëfi sañ Abdoulaat mooy lan moom daal Mbàkke dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg koo def te njaboot gi yàgg ko fee fekk te màggal bu ñëw rek euh, sunu njort ak sunu yéene raw màggal yi ñu génn ci barke sëñ am Lahad borom bis bi waaw euh, xam naa fi ñuy jeexale moom mooy ci bés ba ak euh, woote bi mm. naka ngeen wootee mm. soxna si mm-hmm. ñi mu woo mm-hmm. nu mm-hmm. ci lan la leen woo waaw soxna si ñi mu woo ci lim leen woo mooy ci lim fekk lim leen yàgg fekk ñu leen ci woo rek soxna si xam nga moom ci màggal la fekk la fekk taalibe yi ci màggal la fekk ay waajuram ci màggal la fekk sëriñ bi ci màggal la fekk ñëpp ñëw yem ci màggal xam màggal di ko def soxna si wootewul leen bañ na ko ba annonce yi ba màggal gi tàmbalee ba tey amu ci benn bu mu tudd tur lu dul sama mbokki taalibe yi ma mbokkal màggal gi ñu ngi leen di séentu yaakaar naa ni lii day loo xam ne buñ ko defee ci màggal gi annonce bi day gën a rafet rek waaye kon sax du ko def ndax moom màggal gi ni mu ko yàgg a defee mooy woo ay mbokkam woo ay taalibeem joxe addiyee sëñ Sidi toog ki këram ñu yëkkati xasida muy berndeel taalibe mu mosu koo génn da koo gën a yokk nag fii moom bis ba jàngi xasida teral gan ñi wax lu baax ci sëriñ bi feeñal jikkoy sëñ Abdoulaat loolu rek la fi soxna si woote loolu daal képp ku dégg lii rek ñu ngi lay ñaan boo fekk see danañ ci kontaan lool ndax loolu moo yelloog borom bis bi te loolu la ki fi toogal borom bis bi bëgg te loolu la sëtam biir dox kon loolu nuy woote waaw jërëjëf Khadim Mbaye mm-hmm. jërëjëf am nañu mbégte baax ci mm-hmm. kàddu yooyu nga xam ne leeral nga ñu ko mm-hmm. xanaa rek balaa may jëm ci soxna si soxna si Amar moom euh, euh, yéen soxna yi euh, naka ngeen di waajalee bés bi gannaaw moom bi ngeen ko gisee mu nekk seen biir itam di jaxasoog yéen tey nu ngeen koy waajalee ci bés bi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyoo bu baax di siyaare soxna si Euh, liñ ciy wax nag lu bari la mën a doon waaye xëy na temps bi du ko mën a maye. Hmm. waaye sëñ Abdou Lahad moom ne xam na ko. Hmm. ku ne xam ne lu toogee ñu taxawee ci Touba. Hmm. lu koy mas a jëme kanam ci lay taxaw. ak lépp loo xam ne moom la dëkk bu wootee rek. waaye lu muy bañ lu ne bakkanam la ci mas di teg. loolee sëriñ Sidi ci loolu rek la nekk. ci loolu la taxaw. loolu lañ gis ci moom. Mm. waaye di doomam ji di soxna mm. maam Faati mm. ah yàlla boole ñu mm-hmm. ñuy taalubeem mm-hmm. di xaritam di soppeem mm-hmm. léppam lépp lu ñuy xool ci sëñ Abdou Lahad di ko xool ci sëñ Seydi gis ko ci doomam ji di soxna maam Faati ndax bañ àndee yàgg na waaye tànkam Serigne Touba la ko mës sa teg ak ndigalul baayam ak ndigalul sëñ Seydi di xaritu baayam di diglu ndigalam. Mm. di woy ci ndigalam. Mm. soxna ki nekk noonu rek. Mm. moom ku ne xam na ko moom. yoonu sëñ Touba rek ci la teg tànkam. soxna maam Faat nag màggal gii. Mm-hmm. man ba ma ko xamee yàgg na waaye ci la mas di dox ci la mas di wax. ba ko talee màggal yàgg na. Mm-hmm. waaye comme ni ko sëñ bi waxee rek. lu koy jëm luy berne. Mm-hmm. luy yoonu sëñ Touba. Mm-hmm. luy dem ca baayam jox ko addiyaam mm-hmm. jox ko boppam dellu si waat ci këram gi bernde ñëpp mm-hmm. loolu laa ko mas a xameel bëgg ay taalibeem bëgg ay xaritam bëgg ay soppeem ku mën a doon ku ne tamit bu déggee sa bis rek xeebalu la ko teg na ca tànkam ku mu àndal sagal na la ku mu àndal teral na la kon loolu lay doxe ci këram gi kon Mbàkke Bàlla lu mu am rek moo ko may boppam dëgg la kon ñoo koy ñaanal ci barke maamam li mhm. yàlla na sax. amiin yaa rabbi. te it nag luñ ci seen yàlla nañ ci gis lu ko gën a kawe suñu njort. Mhm, mhm. ñu ngi koy ñaanal daal. moom daal li li mu yéene ci bisu maam bi maamam bii ñu ngi koy ñaanal daal fu mu ci yéene rek. bu naka ni déwénee yàlla na romb foofu. amiin yaa rabbi amiin yàlla guddal fanam. musal ko ci cat musal ko ci saytaan. waaye li ñu war a mën a wax ci moom moom bari na. kon jërë ngeen jëf. jërëjëf eh, am na solo soxna mm. Fatou Amar mm. mm. soxna Ndeye Amar jërëjëf kàddu yi am na solo eh, damay daal di nag eh, jàkkaarloog soxna si ñu jox ko rek kàddu gi waaye nag ñu laaj ko rek ñi nga xam ne ni moom daal moom mooy su ma ko bëggoon a xam dëgg-dëgg xam naa ne xaarim am na lu mu ci jot a kii waaye ci benn parcours bu ndaw xam man moom damaa tàmm fu ma gis foog ma laaj yi <laughs> Alaaji ma Diop mi waajur soxna nu Diop moo nekk représentant Serigne Touba ci Mbour askanu Mbàkke mbusul bi ku saa jóge Touba Mbàkke baa nga jóge Njaaréem boo demee kër baayam ngay dal hmm. ba baayam ba maam dem teraanga ci Mbour kenn mu teraanga moom da cee judd ci yoonu Mbour yor tax na nag mbàkk mbàkk yu bari sonn ndax jigéen mbàkk mbàkk bu jigéen boo dem ni ko da ngaa ndor sonn maam mu mu mu ne da bëgg dara waaye waxoo dëgg mel na mu yëmb tax na ñu baree ngi góorgóorlu ci ci liggéey Serigne gàtt na nag waaye danañ ñaan yàlla may ko fan gudd agale yéenam ci woon suñu bamba bi ba yoon yu mu jaar yàlla agale ko daraja xaadim ñëpp gërëm war mu ñëwee mm-hmm. da teg teg say baas moo ca gën moo ca gën mm. kon yal na ko yàlla fa ca te may ko fan gudd waaw li ma xam ci moom mënu walaay walaay mbuub walaay son xol set na kontaan na mm. jërëjëf kon mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak yéen Euh, comme ni ko Xaadim Mbay waxee soxna Ndey Amar ak euh, Baye Mbuub moom tamit ni mu ko waxee euh, dañuy daal di ñëw nag waxtaan ak soxna si gannaaw bi ñu ko joxee kàddu gi mu nuyoog taalibe yi askan yi ak i bokkam yi nga xam ne ñoo koy seetaan. Hmm, asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. ñu jullit yëpp mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur. di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ci barke Cheikhul euh, euh, soxna si euh, mel na ñi ngi waajal bés bu mag mhm. bés boo xam ne ñu ngi ko jagleel sa maam nga ñëw fii ci Touba nag HLM fas yéene ko fee màggale di ci woo say mbokk yëpp ñëw ñu seet si la fas yéene taataan ci yow ay kàddu waxtaan ak yow ci sëñ Abdou Lahad sa maam waaye waxtaan ak yow tamit ci ki nga xam ne tey moo fi toogee jotaay bi sëñ Abdou Lahad muy sa waajur sëriñ Sidi Mbacke euh, bés bi noo koy waajalee soxna si. waaw bis bi moom comme niñ ko yàgg a waajal rek comme niñ ko daan defee at mu jot jàng alxuraan ak xasaayid yi ak berndel gan yi ndax loolu moom moom lañ judd fekk ko fi te nit ki moom la nga judd fekk ko rek ci tànk yooyu ngay jaar. yow wax na la ci sa maam. Mhm. waaw baaxee ma ci tuuti. wax nan la ci sa maam sa maam sa maam moom wax nan la ci. waaw sëñ Abdou Lahad moom wax ci mën naa gudd mën naa gàtt ndax mën nga cee wax ñetti kàddu yoo xam ne rek day ëmb lépp. ndax nit koo xam ne dañoo dem ba adressé la taalib seexul xaddim ñàkk caaxaan ñi ma dëgg. Mm-hmm. loolu moom mën nañ ëmb na lépp. teraa nga koy wax ba ci Cheikh Abdou Lahad dëpp. ndax bañ na ko bañ nii gan boo koy teral na teraanga ci commencé ca ca raxasuma ndax gan boo ko tegalee raxasu mu raxasu raxasuma tilim rek gàcce dikkal na ko neen toroxal gan foofu la njëkk a commencé kon loolu lépp ñu ci am ci njàngat ci moom mhm. muy suñu royuwaay nag ñu feer ci bokk ñu bokk ci moom ndax sëñ Abdou laxat daal kenn mënut a wax ci moom mhm. mm. kenn mhm. koo xam ne maanaam bañ na fi lu bëri. Mhm. tey dëkk bi. Mhm. bu mu demee ba mu nekk tiitu foncier boo xam ne ne ku fiy dugg. Mhm. danga naan ville spéciale. Euh, lu spécial. ci ci moom la yaakaar naa la jógee. Euh, lu spécial ci moom la jógee. Euh, loolu boo ñu ko doon jàngatal noo ko mën a kii faram-fàccee. loolu de faram-fàccee bi moom mën na bañ a gudd. ndax sëñ Abdou Lahad moom nee naa xale yu ndaw yi am ñeenti at sax kooku ci laaj mën na cee wax dara li mu wax ci biir wax ci sànq rek ñàkk caaxaan ñi ma dëgg. ndax nit ko boo ñàkkee caaxaan daray caaxaan doo ca nekk boo ñemee dëgg tamit amul lenn looy ragal ndax li mu daan wax dëkkub sëriñ Bamba bii sama bakkan laaj ci teg nit nag loo dem ba tekki sa bakkan loolu moom yemale ko ak kon loolu daal tëj na lépp tëj na lépp léppam ci biir ñu ñëw ci sa waajur xam mm-hmm. naa ne moom loolu moom comme li nga wax tëj na lépp mm-hmm. mënatuñ cee yokk leen mm-hmm. euh, sëriñ Sidi euh, ku bëggoon ku bëgg la sax ay rakkam waaye dafa mel ni bëgg rakkam yooyu mu leen bëgg way sa euh, sa maam waajuram ba moo ko def ci moom waaye tamit mu fekk fi tamit ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko féete kaw féete ko kilifa mu comme ni ko Xaadim waxee jox leen li nga xam ne moom la ñu moom seen wàccuwaay maal leen nekk seen taalibe euh, loolu jaxasoo googu noonu nga xam ne gis nañ ko ci moom te ni mu bëggee maanaam ay rakkam rek laa mën a wax parce que jomb naa wax moom romb nañ moom bëgg waajuram moom mhm. waaw loolu noonu noo ko mën a noo ko dundee yow en tant que doomam boo gisee lu ni mel. Mm-hmm. ak nga wala nga bëgg a dem seeti sa ku benn sëñ Mahmadan mm-hmm. sa wayjur nga bëgg a dem seeti seexu na mm-hmm. lan nga yëg foofu. waaw li may yëg mooy sëñ bi moom ku ko xamute dégg nga ko ñun eh, yàlla dafa dogal ñu bokk ci njabootam waaye dañ ko bëgg ba yemaluñ ko ak dara ndax mooy suñu lépp te ci biir loolu li ñuy wax ci sëñ Abdou rek moo nekk sëriñ Sidi ñàkk na caaxaan demul dikkul. lu ko nit di wax këram nga koy fekk wax ko la nga wax mu tontu la tontu kenn duñu la fi sëñ si di wax wala fa mu dem déedéet loolu moom ñu ci sant yàlla bu baax ndax dañoo am wayjur wu mat wayjur mat ko loolu nag tamate ko ci côté yëpp waaw bëgg ay rakkam yiir leen taxawu leen ndax loolu la sëñ Abdou Lahad doon doxee ki rakkam di ko def ci ay doomi rakkam loolu la sëriñ Sidi jaar ci tànk Cheikh Abdoulaye Lahad moom fonki rakkam ak njabootu rakkam loolu ñun itam dañuy am am njàngat ci loolu ñun itam jéem a jaar ci ay tànkam ñun daal mënuñu wax ci moom daal wax fa yàlla. Mm-hmm. soxna bu bu war a màggal si rawatina ci bésam bi. Mm-hmm. am na looy fàttaliku ci moom. Mm-hmm. Euh, noo war a dikkee. ndax loolu euh, yaa ngi ci yee ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw fii rawatina fii sa kër. di Touba HLM. ndax am na yoo leen kàddu yoo leen ni baaxee pour bu buñ dee ñëw. ak buñ dikkee naka la ñu comporté woo. waaw kàddu yi de moom du bëri xanaa li jiitu mooy di leen ñaanal yàlla ñoom ñi ñëw ñëpp suñu borom teg leen ci jàmm ñu egsi ci jàmm te fekk fi jàmm ñu ñaan yàlla ñu maal ko ci jàmm mu jeex jàmm ku ne delluwaat ci jàmm li ñu leen wax tamit mooy dañuy màggal tuukare nag màggal la ñuy def màggal nag mooy lan jàngi alxuraan ci xasida teral nit ñi kuy ñëw nag ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga indi yar ak teggin ak yiw ndax borom bis loolu la bëgg nit na ku koy defal da ngay xool la mu bëgg nga def loola loolu daal lañuy ñaan ñëpp yar ak teggin ak yiw waaw mu doon loo xam ne da koy wane fépp ci Touba. Mhm. moom la ñuy ñaan ñëpp. Mhm. kër yëpp daal. kër yëpp. Mhm. kër gu mu mënti doon mu wër yow yaa ngi sol sa daal di fa dem di ziar ji. ni nga euh, comporté woo kër soxna Mame Faty noonu ngay comporté kër euh, beneen soxna. Mhm. ak doon di ko def noonu. Mhm, mhm, loolu daal mu ngi di sàkku. waaw ngi koy sàkku ci nit tey nag euh, soo doon euh, baaxee askan wi ci maanaam ak taalibe yi. ak yab loo leen yabee loo leen tamit loo leen di joxe comme adiya maanaam loo leen di loo leen di loo leen kii daal. su ma ko mënoon xaadim yéen wala. waaw yóbbal voilà waa kii yóbbal waaw. yóbbal bi de moom mm. paasewul. ñun ñëpp ay taalib rek lañu. ñu gën a nekkaat taalibe Serigne Touba te gën a dëgëral suñu laxasaay te xam ne daal liggéeyal sëriñ Touba moom gis mu la gën fii gis mu la gën fa ñu jëm kon nag ñun ñëpp ñu ngi ci woon sax waaye nañ ci gën a góorgóorlu. alors jërëjëf soxna maam Fatim Mbacke moom seen Sidi jërëjëf Khadim mbay moom mi nga xam ne moo nekk ci coordination bi soxna Ndeye Amar Serigne Mboup ak tamit mbokkum taalibe bi seen mbay Badiane. Euh, ñu ngi am mbégte bu baax àndoon ak yéen ci seen édition spéciale bu jëm ci wàccaay màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbacké euh, ñu koy doon seet si nag fii ci Touba HLM euh, rek xanaa xaarim am na kàddu ñàkkul am na kàddu yoo xam ne ni di nga ko tëjee rek ci page bi nga xam ne moom la ibbi tey fii ci Soxna Mame Fall si moom doy na kàddu ndax kenn mënu cee tegaat dara kon daal ku dégg li soxna si wax mooy woote bi kuy ñëw na nga indi yar kuy ñëw na nga indi yiw kuy ñëw na nga indi xam ni da ngaa ñëw ci bis boo xam ne bisu ku nu gërëm la bisu ku nu gërëm nag ku ca indi na borom bis ba bëgg mën nga caa bokkaale te sëñ Abdou Lahad ku ne xam na ni ku gërëm ndax liggéeyal na baayam ba wàcc jox ay rakkam te dara ñaawul bàyyi fi doomam ji nga xam ne neewoon naa leen ku sañoon booy dem bàyyi fi ku mel ni moom wax ba réegul ba ni sëñ Sidi la waaye bu jëf jëree nduru baayam sëñ Sidi la jërë ngeen jëf bis baa ngoog na ñëpp ñëw def li sëñ bi bëgg ko def daje ngërëm sëñ bi jërëjëf mbokk yi kon nag euh, édition spéciale la woon euh, di Diakhaté ci présentation bi Bekaay Ndiaye ci caméra bi soxna Ndeye jaay ca montage ba ñu ngi am mbégte àndoon ak yéen ci édition spéciale màggalu sëñ Abdou Lahat fii ci tubaa HLM woon kër soxna Maam Faty moom Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoulaye Lahat jërë ngeen jëf mbokk yi ci yeneen jotaay